بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه يين يبكي القرآن نكسن ركب دلن زيار لين يالله سبحانه وتعالى مدفن توفيق تدفن لنكو كم نكون نسي أمنا لي برنامج بس لدون مو أي وقتان أي تخو سبلو شي إذا ما بين خمنة نكون كيفاش نمرو te ñu tuddee ko màggalu Tuuba ñun waxtaan ñu ko dippee waajal màggal li tax ñu tuddee ko waajal màggal mooy ne bépp mbir boo xam ne dañ ko jël di ko askanale ci diine faw jullit ñi xam mbir moomu lan la ca lislaam wax faaw jullit ñi xam mbir moomu lan la leen ci njariñ fii ci àdduna ak fële ca fële ca laaxira ah sagam màggal boobu suy ñëw am na ñoom dañ koy waaj di ko waajal ak i fecc ak i tàccu ak i yàq euh, seeni alal tuddee ko ay euh, bendeel ak tànkal nit ñi ci mbedd yi ak bépp xumbaay ak mumbaay ñu gis ne kon am na beneen anam gu ñu war a maag waajale lu mel noonu loo xam ne dañ ko askanale borom bi liñ ko war a waajalee mooy daal di koy jàngat xool loolu suñ ko tegee ci nattuwaay yi di alquran ak sunna euh, lan lañ fay lan lañ fay fekk looloo tey suñu waxtaan tey bi Euh, dañ koy jël ci ñaari point ci mbir moom incha allah noonu lañ ko nar a doxale mooy chaque waxtaan lañ ciy jël ñaari point yu aju ci màggal googu daal di koy teg ci balance alquran ak euh, sunna ak dégginu mag ñu mag ñu baax ña euh, dinañ jéem a fexe ne bu doon loo xam dafa simple te ni ñuy doxalee mooy dañ koy jëm a def mu simple mun nañ ko defee point bu nekk ñu def ko laaj ak i ak i tontu mbir yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ca duñ indi tawfiq daal duñ ko duñ indi fekkee xam nañ ne lii loo xam ne kenn du ca werante la dañ koy indi rek bañ ciy indi li nga xam ne moom mooy euh, document yi ñu ci sukkandiku ndax euh, bañ a bañ a guddal su fekkee ne loo xam ne jàpp nañ ne lii suñ ko waxee am na ñoo xam mën nañ koo mën nañ ci indi li nga xam ne moom mooy ay sikki sàkk wala bokk di ko di ko weddi su boobu mën nañ ciy teg li nga xam ne moom mooy indi ci lan mooy firnde yi su euh, fekkee dafa jëm ci wàllu histoire moo tax ñuy ñuy wax waaye lépp lu jëm nag ci wàllu moom lii sax na wala saxut ci ne moom foofu ñu indi firnde ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi alayhi euh, wasallam moo dañ koy jéem a gàttal suñuy indi tamit lay yi firnde dañuy jéem a indi rek benn wala maximum ñaar ngir mu bañ a gudd nekk lu gàtt loo xam ne ñëpp dinañ ci jariñu dañ ko jéem a def tamit mu doon lu terre à ah, mën nañ ko def mu dem lu euh, lu loo xam ne ñëpp dinañ ci dañ ci mën a gis seen bopp ñëpp dañ ci mën a jëriñu bañ a euh, pas contrairement comme des fois ni ñuy defee xaw a euh, xaw a xóotal euh, xóotal tuuti kon lii mooy d'une manière programme bi daal ñu ko tuddee waajal waajal màggal am na entre parenthèse am na loo xam ne day faral di ñëw saa bu ñu yëkkatee mbir yu mel nii Euh, te ñu ngi koy séen moo war a ñëw mooy maanu leen waaw li ñu def ni mooy ak maanu ndaxte lépp loo xam nañ koo jël askanale ci diine ki maanu mooy ka nga xam ne mooy taxaw leeral nit ñi lii lan la ci diine lan la ci diine wax kon maanu rek moo tax ñu wax ci ñu bokk ci lan ci waajal lii nga xam mooy magal su fekkee nañ ko askanale nag ci leneen loo xam ne bokk ci diine mbokk rek suñu réew nekk ñu ay sénégalais nekkoon ñu askanale ci diine su boobaa nag suñ ñëwee wax ci moom ah, laal la nañ ñoo wax maandu leen ñu doog a discuter ci ndax loolu ma ñàkk maandu wala ñàkk maandu mais fii moom ñàkk maandu amu fi ndax mbir la boo xam ne sunu réew lay amee am conséquence sunu économie réew mbir la boo xam ne ko askanee sunu diine gi nga xam ne ñëpp dañ cee bokk mooy askanee ko yàlla ak uppa yeneen tam boobu amuñu beneen pexe lu dut daal di cay daal di ciy wax da yàlla subhanahu ma ngi teggee ci lan kuntum xayru umma uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar imma mbir yi mu doon mbir moo xam ne bu baax la su booba dañ doon loo xam ne nag dafa wuteeg li nga xam ne moom mooy ma'ruuf mooy dafa la daa doon ñëwteef boobaa nag ñu daal di ñu war cee wax ndax lan yàlla subhaanahu wa dafa tagg ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy tere la nga xam ne moom mooy ñëwteef ñaari mbir yi mënu ci génn kon li nga xam moom lañ digal jullit lépp lu askan diineem day doon lu baax wala mu doon safaan wa su doonee lu baax kon da caa war a wax ngir da ci xette nit ñi su doonee safaan wa nag da kaa da caa war a da war a moytulikoo eh, nit ñi eh, sunu waajal màggal nii lañ bëgg mu demee ni mooy dañuy jël ay mbir yoo xam ne ay pas-pas la walla ay doxalin wala aw defin ci màggal gi ñu daal di cay indi eh, li nga xam ne moom la ca lislaam daal di jàngale wala boog indi ci at tey lislaam daal di jël beneen deuxième point bi à chaque fois day doon lu aju ci ay mbir yoo am ne ñu ngi ko tudd askane la ko li nga xam ne mooy ki nga xam ne moo waral màggal gi ñu xool ndax wér na wala wérut ndax loolu lu am la wala amul su amee lan moo ci taxawaayu jullit bi lan moo ci àtteeb euh, lislaam moo tax tey sunu waxtaan bi kon ñaari point lay doon point bi jiitu mooy lan mooy àtte lislaam ci màggal point boobu noonu dañ koy xaaj ay ay point point bi ci jiitu mooy ngir xam àtte mbir foo ñu xam mbir bi kon lan mooy cosaan bi kon li njëkk wax mooy li ñu ko xool ma lan mooy cosaanu màggal cosaanu màggal googu waxtaan ci moo ñuy indi kon xam kan moo njëkk a ak ci man anam la njëkk màggale su boobaa anam googu noonu ñu teg ko ndax ci li xam ne mooy sharia ndax anam googu lu saxal ci lislaam wala lu wuteeg euh, lislaam la loolu mooy point bi nga xam ne euh, mooy point bi jiitu ci point bi jiitu mooy point bi jiitu lañ ko xaaj ñaari point wala ñu ko ñaar xaaj ñaari xaaj kon point yu jiitu mooy lan mooy attey màggal Tuuba attey màggal Tuuba ngir wax ci kon faaw ñu la di xam cosaan wax cosaan woowu noonu kon naka la ñu njëkk a màggale naka lañ ka xam ne moo digle màggal googu bokk moom moo màggal moo ko moo daal moo ko moo moo ko njëkk def kooku na mu màggalee ñu xool ndax lu dëppoo ak alquran la wala bokk principe ba dëppoo na alquran sunna dëppoo la alquran ak uh, sunna beneen point bi mooy ni ñuy màggalee nii anam gi ñu koy defee nii kenn moo ko njëkk defee lan mooy cosaan wax ñu xamee cosaan bu pare xam ndax anam googu tamit daal di koy dëgaatal mooy balaasu alquran ak uh, ak ak sunna kon soo gisee kon point bi jiitu mën nga wax ne kon mën nga koo xaaj ci eh, ñaari point point principal mooy atte màggal Tuuba kon màggal Tuuba ko am na cosaan am na anam guñ koy guñ koy defee cosaan woowu naka la woon lan moo ci attey lislaam anam gi ñu koy defee fan la jóge lan moo ci attey lislaam beneen point bi nag mooy point ñaareel bi mi nga jur ci ndax kii di sëñ bi nga xam ne moom la ñuy màggalal moom ndax julli na ci géej gi boobu mooy point bi nga xam tey bëgg dañ ko waxtaan lan moo ci ndax julli géej googu ñu koy askanal ci su màggal gi insa dañ ci wax lu bari ndax julli géej googu lu euh, lu wér la ñaareelu point bi ne mooy ci waxtaan yi def ci kon waajal màggal gi euh, à chaque fois day aju ci mbir yooyu nga xam ne woo nañ ko woote nañ ci jéem koo étudier jéem koo jàngat ba xam la ca wér ñoom lañ ca wax dellu seen i seen i seen i ñoom lañ ca wax jéem koo jàngat xool ndax wér na wala wala wérut suñu xamee ne wér na wérut pare ñu xool nag l'islam moom mbir yu mel noonu naka la ko naka la ko naka la ko jàngale wala boog l'islam naka la gisee mbir yu mbir yu mel noonu barakallahu fikum point bi jiitu mooy lan mooy atte l'islam ci màggal ñu wax ne kon ngir xam lan mooy atte sañ màggal faaw ñu xam lu mooy lan mooy màggal wax ne dañuy faral di wax ne al xukmu ala shay farun an tasawure mooy nit mënoo atte ci dara lu dut ne Eh, mbir moomu danga koo eh, danga ko figurer d'une manière eh, exacte mooy nit mënoo atte ci mbir te xamoo mbir mi lu mu lu mu doon kon faaw ñu xam la mooy màggal nga xam la mooy ñu dellu ci li mooy cosaanu cosaanu màggal lan mooy cosaanu màggal ak kañ la njëkk a màggal njëkk a màggal ak lu taxoonu jug màggal ak ci lan la laaju su ñu ñëwee ci laaj bi jiitu kañ ak kan moo njëkk a màggal ki njëkk a màggal day dellu ci kan mooy borom màggal gi mooy ki nga xam ne moom mooy ñoom la ñuy tuddee sëriñ bu euh, bu mag bi te ñu xamee ko ci sëriñ euh, Touba moom mooy ki nga xam ne moom moo njëkk moo njëkk a màggal kañ la loolu murid dañ cee dañ ci dëppoo ki njëkk a màggal mooy sëriñ Touba loolu amut ak ak euh, ab wuute kañ la njëkk a màggal am wuute ci at bi soree na ci wute waaye ñu di jël li nga xam ne moom la ki fi nekkal kooku nga xam ne moom nee moo ko fi nekkal moom mooy moom di xalifaam moom la mu tarjiix ñu daal di ko jël mooy kii di sëñ Muntaxa moom Muntaxa Mbàkke moom la mu tarjiix mooy ne màggal gi mooy biñ njëkk a def ci 1922 la kon 1922 moom mooy màggal gi njëkk a eh, gi njëkk a màggal ku njëkk a màggal kon moom mooy sëñ Tuubaa lan lay màggal la muy màggal mooy bis bi nga xamee ne dañ ko tubaab yi dañ koo jël ginnaaw bañ ko tuumalee ay tuumaal loolu def nañ ca waxtaan ku ci bëgg mu ngi ca delloo ci euh, les relation euh, Serigne Touba avec la colonisation mi ngi ci youtube alquran ak sunna def nañ ci waxtaan ba gudd ca bañ ko yóbbu ba mu dellisee ba yóbbu ko mu tam dellusi lépp def na ci waxtaan ak ay euh, ku ca ku dem ci youtube bi di nga ko fa di nga ko fekk incha allah kon lamuy magal moy lan moy bis bi nga xamé ne ci lañ ko jëlé daal di koy yóbbu fa nga xamné euh jinné ko euh fi nga xamné moy Sénégal di ko yóbbu euh li nga xamné moy gamo mom moom tuddé al ghaiba al bahriya mooy kon premier exil bi bi nga xamné ne mi ngi xew ci 18 août 1985 daal di ak li nga xamné moy 18 18 safar. boobu la ci 1922 sëriñ bi gis ne loolu comme xéewal la ci moom yóbbu guñ ko yóbbu dinañ ñëw ci loolu naka la doon xéewal ndax dinañ ko soxla ngir xam lan mooy àttee lislaam ci eh, ci mbir mi eh, kon ca lan la ci question lan lañuy ñuy màggal mooy kon yóbbu gi ñu yóbbu sëñ bi tubaab bi jël ko daal ko yóbbu fa nga xam ne mooy di ko yóbbu ga moo ca yóbbu ko ci eh, ci géej gi mooy al ghayba moom lañuy Eh, màggal ci ban anam la ko màggale ba tey suñu delloo ci muntaxa na mi nettali ci màggal ga mooy naka loo màggalee loolu mooy dafa daal di digle ñu rey ay li nga xam ne mooy ay gàtt eh, ca ca ca njaarim ñaari gàtt ñu daal di jël ñaari gerte yooyu rey leen daal di cay defi togg daal di koy séddale euh, loolu la ñuy waxee sax tuddee fa lay jógee wala bokk en tout cas euh, ci bernde ci màggal fa la tàmbale loolu moo tax tuddee ko ay bernde kon li nga xam ne mooy cosaan li ci màggal gi mooy lan damay sant yàlla ci xéewal goo xam ne defal na ko mooy lan amay noon boo nag samay noon ñu jël ma yóbbu mu ngi sànk ma loolu xéewal la ci man dama koy sant ci ci loolu waaye na ma ñeneen tamit sant la ci ci loolu kon lii mooy cosaanu màggal mooy nekkuloon ñu bàyyi benn xel mooy kon ah, nekkuloon ñëw daal di tukki ñëw ñëw Tuuba ndax jamono ñu koy def ma nga nekkoon fa nga xam ne moom mooy moom mooy njaareem nekkuloon tamit ñoo leen fekk ma fi nga xam ne moom mooy moom mooy njaareem kon ne waay nekk rek na daal di eh, rendi ay gàtt ngir santale ma ko yàlla ñu war a taxaw foofu lan mooy atte yàlla lan mooy atte lislaam ci koo xam ne yàlla defal na ko xéewal mu sante yàlla ci xéewal googu mu ne xéewal gi yàlla defal na ma koy sant yàlla loolu lan mooy atte yàlla defal na ma xéewal waaye bis boobu mu defal xéewal saay bu dellu si ma daal di cay def ak njaamu yàlla ngir sante yàlla ñetteel bi mooy yàlla defal na ma xéewal ma digal nit ñi ne sant leen ma yàlla ci xéewal bi ñeenteel bi mooy lan mooy at islam ci yàlla defal na ma xéewal ma digal nit ñi ne bu bis ba dellusee sant leen leen ma yàlla ci xéewal boobu taxaw leen fii mooy ñetti ñeenti mbir yi mooy aju ci aslu ci cosaanu màggal soo màggal kon fi ñu koy taxaw di seetlu mooy ki nga xam ne moo màggal moom ki njëkk a màggal di sëñ bi moom li nga xam ne moom la màggale mooy wax ñu rey gàtt mooy njët njëlbeen gi gàtt yooyu moom rey na reylu na ayib léegi kon foog ñu xam lislaam pour ñu xam lislaam lan la àtte ci loolu foog ñu xam mbir bu nekk la mu doon kon lañuy ñuy njëkk a xool mooy lan mooy àttey lislaam ci nit ki man yàlla defal na ma xéewal ma ne damay sant yàlla ci xéewal googu jaamoo ko yàlla loolu aw laaj lay mooy jiitu boobu ngay njëkk tontu soo tontoo bii taxut nga tontu ba ca des ndax bu nekk daa am lay mooy su indee layu bii mu des beneen lay lay ba tax mooy léegi lan mooy attey lislaam su ma yàlla defaree xéewal ci bis bis ba saa yi ba dellusee ma cay defee jaamu yàlla ngir xéewal boobu bis ba mu dellusi loolu beneen laaj la bu teg bu jiitu layu bi du bokk ak layu layu bale ñetteel mooy lan mooy atteb lislaam yàlla defal ma xéewal xéewal gi daal yi nekk moo xéewal goo xam ci man lay dellu ma digal ay nit ne leen xéewal googu su ñëwee sant leen ma ca yàlla lan mooy atte lislaam indee lay boobu muute nag beneen da ngeen di ci beneen mbir beneen laaj ba mooy lan mooy lan mooy attee lislaam ba tey sant leen leen ma yàlla ci ab xéewal bu ma defal saay bu bis ba ñëwee dee leen defi sant yàlla ci bis boobu mbir yi faw ngir ñu xam cosaanu li nga xam ne moom mooy màggal ndax lislaam da ko yoonal wala yoonalu ko faw ci ñeenti laaj yi bu nekk ñu am ca li nga xam ne moom mooy ay dalil su fekkee ne am na benn boo xam ne amuñu ca lay ci alxuraan sama mujj su fekkee ne amuñu ca lay am na benn bu ñu amul lay rek dafay màbb ne kon mbir mii moom yàlla sunu yàlla subhaanahu taala digle ko kon point bi jiitu mooy faw ñu xam mooy ne lislaam yàlla daf koo daf koo ñekk mooy su may yàlla daf koo ñekk mooy lépp lu nit ki di def di ko jaamoo yàlla sunu boroom jàpp ko mu doon qaida bindal nga jàpp di ko appliquer ko ci bépp mbir bu la wax ne danga koy def ngir jóge ko yàlla sunu boroom mooy lislaam yàlla def ko ñàkk lam ko ñagee mooy waxam ga nga xam ne moo nekk ci alquran ak la ko digal yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam mooy lan lépp lu nit di def di ko jegee yàlla sunu borom mu doon jaamu yàlla faaw ne mu nekk ne loolu du ko jële ci alquran wala mu jële ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa soo ma lislaam lool luy lay bi lan mooy lay bi de lislaam yàlla daf ko ñàkk ñu leen mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam ne sunu yaay ja Aïcha mi ngi ko nettali jële ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa warad mu ne képp comme da ngaa jëf joo xam ne amoo ci sunu ndigal kooku dañ ko koy delloo nan la ñu amee ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo loo xam ne da ko jëf ñu gis ñu xam ne ndigal la ñu topp ko ca la yàlla moo ñu waxoon ne walaqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana su fekkee ne kon da koo jëf ñu xam am nañ ndigal ngir topp ko ca def ko ca moo xam wala boog ndigal la moom daf ñu ko daf ñu ko wax ñu xam ne ndig la ñu yàllante bi bi wax nañu def leen ko loolu moom digal la goo xam ne kenn du ci war nañ ko war a def su luy lay ba yàlla subhaanahu wa ci ay yu bare ba dañ ciy tudd bii ñëw suñu bopp nii rek yàlla subhaanahu wa taala daf ñoo wax ne wa maa aataakumu rasul fa xudu lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox jël leen wax ñu tamit nañu ama eh, ci beneenub eh, eh, laaya mu ne falyahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna yusibahum adabun xalil yàlla subhaanahu wa taala nañu nañu moytu ñi nga xam dañuy wuteeg ki nga xam ne mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay biram ay mbiram ay ndigalam nañu moytu ah, li nga xam ne mooy fitna mooy bokkaale yàlla sunu borom tabbi ci kéefër na wuteeg yonent dafa rëy nañu moytu mbugal bi yàlla sunu ah, sunu borom wala ñu def ko ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di cay mu daal di cay noppi. luy lay ba yàlla soo dama yonent bi salaam balligh ma unzila ilayka min rabbik yàlla yonent bi daf ko digal ne ko mu wàcc mu daal di jotte lépp lu yàlla wàcce ci moom suñ defee mbiri ci kanam mu noppi ca su fekkoon ne am na lu koy tere da koy wax na yàlla da ko wax mu euh, mu jottali kon l'islam dafa ñàkk lislaam dañ koo ñàkk kon lépp loo xam ne nit ki ma ngi koy def ne jaamu yàlla la dama koy def ngir jigee ci yàlla yaakaar ca tuyaaba yaakaar ca ñu jéggal may bàkkaar yaakaar ca dugg dugg ajjana yaakaar ca yëkkati ñu yëkkati samay martaba xaw ngi daal am lay ca mbir ma ne lii nii yàlla moo ko digle wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digle nu ko diglee da koo def ñu gis wala dañoo wax jëf leen wala dañ koo def ci kanamam mu daal koy mu daal di koy yoonal ci ak noppeem wala mu yoonal ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy waxam moo tax dañuy ñu xool ñetti mbir yi ñu ñeenti mbir yi ñu laaj ñu xool kon lan la ca lan lañ ca am su fekkee ne am nañ lu ko dugal ca ñag wa ah ñu xam ne kon wér na su fekkee ne dara dugalu ko ca ñu xam ne kon ma ngi ca biir duggul ca duggul ci duggul ci biir jàpp ko mu doon ab qaayida laaj bi jiitu mooy lan mooy attey lislaam ci ki nga xam ne yàlla da ko defari xéewal mu daa di wala dafa ab xéewal wala ay xéewal mu daa di defi jaamu yàlla wala ab jaamu yàlla ngir santek yàlla sunu borom lan mooy attey lislaam ji loolu tontu mooy ne loolu lislaam yoonal la lan mooy lay wi lay wi bari na lool ci alquran ak sunna ñu tudd ci benn mooy yàlla sunu borom dafa digal jullit ñi ne leen faw ñu nekk ñoo xam ne dañuy sant seen seen borom moom la arab tudde li xam mooy ashukur shukur moom lañuy ñuy tekkee ci tubaab mooy li nga xam ne mooy reconnaissance reconnaissance googu ci sharia naka lay demee mooy fisal xéewal googu daa di koy sante yàlla mooy daa di ciy jëf jëf yoo xam ne yàlla da ko gërëm mooy mbir ma su fekkee ne ab xéewal bu la yàlla jox nga daal koy utiliser daal di koy jëfandikoo ca la yàlla subhanahu wa taala daal di daal di daal di daal di gërëm su fekkee na loo xam ne sax lu weesu la waaye yàlla defal na la ko mu doon loo xam ne ab xéewal la nga daal di sante yàlla ci daal di koy daal di koy jaamu jëm ci la mu bëgg daal di sori lépp loo xam ne yàlla sontal daf ko daf ko daf ko bañ bokk na ci loolu góor góorlu cekk Euh, jaamu yàlla bokk na ci loolu kon daal di koy defal ab jaamu yàlla mun na nañ jaamu da ngay jug julli ñaar rakk wala da ngay sujjóot wala nga rendil kow mu xar yàlla def na am naa bakk nga ne xaaral ma rendil yàlla ñaari xar ci bakk bi nga xam ne may na ma ko wala ma rendi xar ngir daal di jël ndawal la sarax ko ay nit ñu ndax loolu jaamu yàlla ngir sante ko yàlla sunu borom loolu luy àtte mooy lislaam daf ko def ko euh, yoonal ndaxte yàlla sunu borom mi ngi nettali wala boog mi ngi wax ci yi nga xam ne mooy yenent daawuda ku njabootam yàlla may wax ñoom nee na imalu ala daawuda shukra yàlla laa dew alu daawud ñu daal di jëf ndax yàlla sunu borom di leen xéewal xéewal yu rëy jël leen jox leen nguur jël doomam jox ko nguur ak ku yeneen comme ni joxe baayam ba pare nag daal di koy jox nguur goo xam ne jox ko keneen ku dut ku dut moom moo leen jëf leen nag ngir sante ko yàlla sunu sunu borom ñu xam ne kon li nga xam ne moom mooy jëf shukur day aju ci li nga xam ne moom mooy moom mooy jëf mooy jëf la nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala daal di daal di daal di gërëm mooy li nga xam ne mooy al amal as-saalih mooy jëf loo xam ne yàlla du ko gërëm la yàlla sant gërëm mooy loo xam ne dafay nekk ci muqtada shahadat la ilaha illa allah anna muhammad rasulullah mooy lan mooy mu sel kase ngir yàlla sunu borom daa di dëppoog la yeneen la yàlla wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam kon képp koo xam ne yàlla sunu boroom jëf na lu xéewal nga daal di def jëf joo xam ne sell na yàlla rek nga tax nga koy def mu dëppoog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kooku la mu def dañ koy tuddee lii moo xam ne mooy mooy gërëm yàlla sunu borom wala bokk reconnaissance jëm ci yàlla sunu sunu sunu sunu sunu borom lii mooy li nga xam ne moom mooy kon ne su fekkee ne kon sëñ bi moom dafa bis boobu ah, wala boog ba ko yàlla daal di libéré wala boog ba mu jàpp ne dem googu xéewal la mu daal di ñëw ne ah man damay ren di xar sant ko yàlla suñu borom dañuy wax ne la mu def kon dëppoo nag li nga xam ne moom mooy ah, moom mooy ah, sharia kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy point bi point bi bi jiitu. ñaareelu laaj bi lan mooy atte yàlla daal di may defal ab xéewal ma daan ne nit ñi xéewal gii ne bëgg na ngeen ànd cek man di ci santaale yàlla sunu borom dañuy wax ne mbir moom ci ñaari mbir lay dellu imma xéewal googu yàlla defal dafa laalaale ña nga xam ne ñoom nga wax ñu santale la yàlla ci yàlla ci mbir ma su boobu dañuy wax ne foofu xusuur ci ibaara dafa dafa am lan mooy xusuur bi mooy ne ñooñu di sant yàlla sunu borom nekkut ne yow la ñuy santale waaye ñoom dañuy sant yàlla ngir ne yàlla da leen defalub xéewal donte xéewal ba ci yow la jaar nit a gi nit ay noon dugg nañ ci ceeb kër moom mu daal di kër ga ñoom ñëpp ko bokk waaye moom yàlla may ko njàmbaar mu jóg jàmbaar la noon wa dàq ko yàlla dimbali ko dëgëral ko mu daal di dàq ñooñu noon wa daal di dem moom yàlla defoon na ko xéewal waaye xéewal googu ña nekkoon ci néeg wa nekkee mboqat di nelaw euh, xalaat na leen ci xéewal ga mu ñëw di sant yàlla suñu borom ñooñu it dañoo war a sant yàlla mu xéewal gam leen defal sant ga ñu sant yàlla suñu borom nekkul moom la ñuy santale waaye ñoom dañuy sant yàlla borom ndax xéewal gam leen gam leen defal kon ñooñu seen sant moom day dellu ci addila yéen njëkkoon tudd lay yéen njëkkoon tudd mooy ne sant gi ñu war a sant yàlla sunu borom ci bépp xéewal bu ñu yàlla subhanahu wa taala defal te suñu doon wàññi xéewal yàlla yi duñ ko mës duñ ko duñ ko mën a matale imma mu doon ne kooku nag xiiwal ga ko yàlla sunu boroom defal ci moom la yem ya laalut ña ca ña ca des mu woo ñooñ ne leen ñoo leen sant leen yàlla suñu borom su boobaa kook dan nañ ko faw nga indi lay ki lislaam da waxoon na li njëlbeen lislaam dañ ko dañ koo ñàkk kon jëmmi suura bii nii man yàlla defal na ma xéewal man ma am sama bakk dem am sama bakk wala am sama métier ñu daan waa koñ mi la bëgg naa yéen ñëpp ngeen sant leen yàlla suñu borom dan na la loolu lan mooy lan mooy lay bi ci lislaam soo teelee ne awma lay ci alquran awma lay ci sunna dama ko dugal rek ca eh, lay ya jiitu mooy da nga war a sant yàlla sunu sunu borom ne jaamu yàlla ñoom dañuy sant yàlla sunu borom ñu ne la ñaari mbir yu bokkut biir yi da am lu ca dolleeku mooy da ngaa jël ay nit yoo xam ne xéewalu bopp la ngeen foog ngeen sant la ma yàlla sunu eh, sunu borom te doo seen wuyunante sax <laughs> defar yàlla yónnu la ci ci ci ñoom ba pare nga leen ngeew ñu leen sant leen ma yàlla suñu loolu foog mu foog mu amub lay bu jugee ci alquran ak alquran sunna soo telee toog yàgg waxoo andiloo ñu lay ay santan ngay euh, ngay euh, nga koy def te amoo lay boo indi lu dut lay bay firndeel ne nit ki suñ ko defee ab cant ab jaamu yàlla mën na caa cante yàlla boppam ñu xam ne amoo lay ñu leen loolu xool alquran sunna xoolaat sax ne nag ñoom daa ña nga xam ne ñoom la yàlla wàcce wala ko yàlla wàcce alxuraan ci moom digal ñu topp ko ay jëfam daa wuteeg loolu mun na jël benn benn lay ci loolu waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ñëwee sax al buxaari ak al muslim moom da daan julli soxna da daan julli yenn saa yi ba tànk yar yi di neewi ñu daal na ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yàlla sunu borom dalaa digal dalaa li nga xam ne def la baal jéggali say bakkaar yéen a ñëwul ñu def allusion ci li nga xam ne mooy tàmbale suratu alfath mooy inna fatahna laka fatham mubina yàlla da ko jox conquête bu mag conquête mag wala teg rek ngir yàlla daal di koy jéggal bakkaaram li yaghfira allahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ma taaxar li yàlla daal di lay yàlla subhaanahu wa taala jéggal koy bakkaaram ya ñëw ak ya ya ñëwagul yonent bi sallallahu alayhi wa tontu na leen afala akunu abdan shakura ndax du ma doonub cantakoon ndax man mi daa warut ci man ma doon ab ab cantakoon mooy kan ba sant ay nit ba sant ay jaamu eh, ba ba ingrat ci yàlla suñu borom ndax yàlla defal la nga sant nit ci ci la nga doon defal yàlla jaam nga defal ko keneen loolu du sant loolu ku ko def euh, sànkaakoon nga da ngaa di sànkaati waaye du cantaakoon waaye cantaakoon mooy ki nga xam ne yàlla da koo defal xéew mu sant ci yàlla suñu borom fii lañ ciy déggee mooy leen su fekkoon ne dañuy woo kenn ñuy santale kenn ci dara ka ca gën a mooy yàlla sunu sunu mooy yonent bi sallallahu alayhi alayhi wasallam ndax yonent bi salla sallam xaaliban la nga xam ne moo koy laal ci xiiba day lal uma yonent bi salla sallam yëpp waaye yonent bi lii nga xam ne moom la ko yàlla jagleel jéggal ko bakkaaram nga xam ne xusuusiyaatam la wow te ñu ko gën a jegee ñu santale ko ci yàlla sunu borom su fekkoon ne dañuy woo kenn ci xéewal nga santal yàlla sunu borom ke yonent bi salla sallam soxnam yooyu du ko laaj di ko di ko ñeewantal ki noonu muy jaamoo yàlla su daan la yéen ñi si da ngeen war a jug santale ma yàlla sunu nu borom ñàkk bokk ca la nga xam ne moom la ñu ñàkk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla defal te bu nekk xéewal gu aju ca moom woowu ca ñi ko gën a jege ñu santale ko yàlla su ma cay woo ña nga ne ñoom ñooy euh, ñu ko gën a bokk yonent ñëpp ko jege sax waaye jigéen guñ koo jegee ci la mooy ci nasar gën koo jege ci ja giseek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu woo nañ ci woo ci ay saxaabaam woowu ci ay ay ay soxnaam exemple bi lañ jël nag yenn exemple yi fekkee fatx bi la wala li nga xam ne mooy gazwatu Badar yooyu yëpp sax ñun ñi am na ak xéewal guñ yàlla subhanahu wa taala defal moo doon jël bii nii nga xam ne moom yàlla da ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la yàlla jéggalee bàkkaaram ak yu ñëwee ak ñëw ko ñun jéggaluñ suñu bàkkaar ñëwee ak ñëw ko yéen yàlla la ko yonent bi defal moom mu koy sante yàlla sunu sunu borom te waxoot nag ñëw leen sant leen ma yàlla sunu sunu kon ëwalan su fekkoon ne yem nañ ci ñee tële indi ñu lay boo xam ne nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa ci moom nit def am xéewal bu yem ci moom mu daan ni ñeneen ñi santale ko te amuñu ci ab lay doy na ngir wan ne mbir bi bokku ci islam waaye naka na suñu fekkee seeni jëf ñoom mooy tàmbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xéewale leen yàlla subhanahu wa taala defal daaw ñu ci woo kenn ñëw leen sant leen Abu Bakr Siddiq moo gën sëñ bi eh, Omar a gën sëñ bi Ali moo gën sëñ bi Othman moo gën sëñ bi wala moo gën sëñ bi Othman a gën sëñ bi Ali na gën sëñ bi yàlla defal leen xéewal yu bare bare amul sa fenn fu mu saxee ci ñoom fu ñu woy kenn leen kaa sant leen yàlla ci mbir mi te ñoom la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne alaykum bi sunnati waxoon ne ba jaaxle ba mbir yi rëbëjoo ba nit ñi commencé sos ku nekk commencé woote borom kaala gu nekk génn su boobaa loolu de mu ne aleykum bi sunnati ñoo ko naan mu ne wa sunnati xulafa rasul mahdiyin ak sama sunna ña nga xam ne ñoome sama ginnaaw te nekk ci li nga xam ne mooy ak njub ñu xool ñooñ ñëpp nekk ci loolu ñu xoolaat ci saxaaba yi ñoom ñëpp amul kenn ku ci mës a sax ci moom mu ne yàlla dama defal xéewal ñëw leen sant leen ma ci xéewal googu doon mun na ñëw dem ba saxaaba yi jeex ma ñëw ci ginnaaw ñu jël ci ibrahima may makki nga xamne ne sëñ bi ci ñenn ñom lay askanal ci fiq malik mu ñu jël shafi abu hanifa imam ahmad mu ñu jëlat ñeneen mu ñu jël awzaa'i mun nañu jël sufyanayn ayni ibnu uyayna ثوري من حمادان حماد بن سلمة حماد بن زيد من جل abu zura mun nañoo wàcc suuf ñooñu ñëpp amul kenn koo xam ne saa na ci moom muy jël li nga xam ne mooy xéewal ku ko yàlla defal ni sant la ma ci amoon nañuy taalibi am nañu ñuy jàngal amoon na ñoo xam ne ñoo nekkoon loolu doyoon nañu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu xam ne kon loolu bokk bu naa daal di defal xéewal goom dafa laal ñëpp ñu ne ko nu laalee ñëpp mu ne xéewal gi yàlla da yóbbu ci tubaab yi ñu ne ko waaw loolu moom lu ma laalee man li kenn ko defee xéewal loolu doonte ab musi ab euh, natt la waaye jàpp ne xéewal nangul nañ ko waaye nu man lu ma laale ñu nu ci xéewal googu rek yàlla subhanahu wa taala daal di libéré Sénégal waaw loolu lañuy faral di wax su boobaa nag ñu daal di xam ne tey moom lépp ñëpp dëppoo ci weddi mooy ñëpp dëppoo ne ba sëñ ba di dund amuñu woon indépendance ba fi sëñ bi jógee amuñu indépendance ba 1960 gi ñu jàppoon am nañ indépendance te ñëpp dëppoowaat maasoo daal di xam ne tey la tubaab bi tey lañu tubaab bi gën a noonu kon loolu moom beneen xéewal doon mu doon xéewal goo xam ne ci ay yum mu daal di dem ci martabaam mu daal di am wilayaam mu nekk xutb mu doon mu jox ñu jox ko ca alwerdul maxuud mun waaye mënta doon xéewal boo xam ne moom dafa laal Sénégal yi wala boog ba laalaale sax ci xam ne mu ngi xéewal boo xam yàlla moo ko defal moom la fekkee ni xéewal la waaye nag xéewal gi moom li nga xam ne moo nekkoon mbir bi noonu wax ne dañoo libéré Sénégal mais nit ñi dañoo nelaw yàpp naan tey ñëpp yeewu nañ xam ne Sénégal jégewute libre wax ma sa 1960 jamono ji ji ji ba tey waxuma ne Sénégal Afrique ay jégewute libre tey la fi yi daal di gën daal di gën a nekk te tubaab bañ fi dem sax ñii nañ fi bàyyi mooy sëriñ ci loolu dinañ ci desuwaat yeneen détail kon ñu xam ne kon ci li am na cooy waaqe ak ci li na mooy cosaanu mbir mi ci ñaareelu laaj bi ni gis na wuuteeg li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy charia daa wuuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñetteelu laaj bi mooy yàlla subhaanahu wa taala mi ngi ni defal na ma ay xéewal xéewal yooyu nag ab ci benn dat la tombeel dat boobu saa bu dellusee man dama ci defi jaamu yàlla suñu borom lan mooy atteem ci lislaam jàppal ne suura bi wute nag suura bi nga xam ne moo jiitu suura bi jiitu mooy yàlla defal na may jaamu ab ab xéewal ma def cay jaamu yàlla loolu wute nag saa bu seen ma koy def kon lii tontu bi mooy ne delluwaat ci qaida ba mooy ne lislaam des koo des koo ñàkk kon faaw kay def loolu moo ñu indi ñu ay lay suñu indilee lay nañu mën nañoo sant yàlla ci koo xam ne dafa koo defa dañ koo defal xéewal ñu ne la waaw loolu ànd nañ ci yow waaye nag saa yi bu dellu si nga xëy defaat ay jaamu yàlla loolu dafa laaj li nga xam ne mooy nga xool noo koy dugalee ca ca ñag wi ndax suura bi wute naka wute nag bële comme nin la laajee woon woo ña ca bokkut ne leen ñëw leen sant le ma ñooñu moom it lu mu li mu laajee ay lay biit noonu la wutee loolu lañ laajee loolu lañ ngi soxla ay lay su fekkee ne mi ngi koy def ay téeméeri at ba tey saay boo ko laajee lam lay indil mooy ne lay firndeel ne mën nañoo sant yàlla ci ay xéew lu ñu defal waaye amul lu ciy firnde ne saay bu ñëwee mën nañ koo defaat su boobaa ñu ne ko kon ñu xam ne kon amut lay kon mbir ba duggut ñag ba mooy ñagul islam bi waaye soo del si waatee daal di seetantal sa xool ka nga xam ne moom la ñu waxoon yàlla moom la lan la wax ci moom wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mooy yéen ñi yaakaar yàlla yaakaar dara yowmal qiyam bëgg faa texe xam leen ne benn yoon kese mooy benn modèle mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu ci kooku ndax yàlla mës na koo defali xéewal ñu ne waaw def na koy xéewal yoo xam ne kenn du sikki sàkk ñu rek yéen mu murit tiijaan ñéppay dëppoo ni xéewal yooyu mu ko defal amut kenn seen sëriñ ko xéewal lu toll lool xéewal yi mu ko defal kenn mënta werante ñi xéewal ndax man maa ngi werante yéen ci ne ndax lii nii xéewal la mooy xéewal la wala musiba naam nga xam ne ngeen jàpp ne mooy xéewal gi laal ñun maa ngi koy werante géen mais leen ne yow ay mbir yoo xam ne xéewal la yoo xam ne moom kenn du werante ne defal laal yonent bi laalaale umma bi keroog ba keroog ba keroog àdduna di tukki jàppal xéewal gi yitu yàlla subhaanahu wa taala jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ab yonent bis boobu bis du ko gën a rëy kim xéewal yàlla subhaanahu wa jël yonent bi sallallahu alayhi def ko ab yonent mën nga ko def sa ñaari bis bis ba mu ko iqra bis mu ne ko yaa ayyuhal mudaththir nga def ko ñaar dangay mën a feete mën a màggal rek yii màggal gënu ko rëy yém du foofu ñu daal di dajaloo ñoom ñëpp yéefar Màkka ne tey lañ koy rey dañ koy rey sëñ bi dañ koy yóbbu di ko yóbbu Gabon wax nañ ko ko delluwaat ci audio yóbbuwuñu ko pour rey ko mais kii ma def dañ koy rey moom suñ ko su deewee mooy raxma gi nga xam ne moom la yàlla yónni ci humanité gi yëpp moom la ñuy moom la ñu faagagal ana rahmatul muhda mooy yàlla subhanahu wa taala daf jël def ko mu nekk ab raxma mu nekk ab li nga xam ne mooy miséricorde ci ñëpp ko jox ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mu goo xam ne ci ñàpp la tey wisaw ñu bëgg koo rey yàlla daal di koy xettali mu jóg waaxu romb leen jàppal ñett ngoog ñetti dab yu féetee ba tey lii ngeen di wax ay dem na ci gabon yëpp yëmul foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu romb leen ñuy nelaw ñu yeewu dugg fekk fa ali naan wër daal di def wantit teg ci boppam ku ko indi ku ko jox na nangam ñuy wër ñëpp jug di wër mu dugg ca xunt ñu koy wër di ko wër yàlla subhaanahu wa taala ko jàppal beneen dat ak boo xam ne màggal mun dat bu ñu màggal mun ko mutu koo féete kaw mu dem Medina yàlla subhaanahu wa def mu génn ngir daal di gàttandu Abu Sufyaan la mu yoroon karawam yoroon duggee pour dellu Makka mu daan gàttandu loolu ngir daal di nangu wala nangu ca lenn lañu bañoo Makka bañ fay génn ñu nekk juróom ñetti téeméer wala bokk ñetti téeméer fukk ak ñett trois cent treize wala trois cent quelque ñee nekk lu lim bu mat junni wala jege ko tuuti manqué benn wala ñaar ñoo jàkkaarloo yàlla dimbali ko mu duma nga xam ne bis ba bis ñu rayoon ñooñu kenn dootul jaamu yàlla ci kaw suuf <laughs> loolu màggal gën a ko rëy jàppal ba beneen data ngoog juróomi dat mu ñu lewaat waa Màkke daal di ñëw def daal di dajale seeni ponkal dajale seeni armée daal di dëppook yi yahud ya nekk ci mbir yi ñu daal di complot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw encercler ko mooy gazwatu xandaq al ahzab yàlla xetteleetu ko lii may tudd yëpp moo féete kaw foofu jullit du werante lii tudd yëpp moo féete kaw al xaybatul bahriya ci ak xéewal ci jullit ñeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppal juróom ma xaw ma juróom benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy dooleel ko ba dëkk bañ ko génne woon mu ñëw dugg fa muy fattu mag balaa mun mën nañu dugg Xudaybiya sax mën nañu fattu mag beneen xéewal a ngoog mu daal di ci amal xéewal Xunayn waxuma la xéewal yi nga xam ne nag moo moo ñëw ci ginnaaw bu fóodee nit ñi di ñëw mais nañ ci jël yooyu rek ñu tudd xéewal yi yëpp moo féete kaw fuuf lii nga tax ñuy ngay màggal ñu xool yeneen bi yàlla yónni ci ndax moom xéewal yooyu da ko jàppee ay dat saay bu ñëwee mu ne sant leen yàlla santale ma santale ma yàlla si booba sant ko ñun sant santale googu mooy sant yàlla si ndax lool suñu xéewal la comme ñu doon xéewal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax yeneen bi am na benn ci bis yooyu bu mu jàpp bu dat di ko màggal saay bu ñëwee nit ki jullit xalaatal nag xalaatal ne yeneen bi lañ yónni ci yow waaw yonent bi su fekkee ne loolu ak xéewal da ce nekk ak bëgg yàlla da ce nekk ak eh, xam wala boog loolu ak yiw la ndax jàppe nga ne kenn ka nga xam daañoo tuddee boppam moom ne mooy moom serviteur yonent bi la mindaanam la ndax mën na koo jiitu ci giiw ñu doon taxaw ne wallahi maa leen maa leen gën yàlla suñu borom fuuf ñam ko doon wax mooy saxaabatu kiram siddiq mi ngi fa te suñ jëloon gëmam jël gëmu ñëpp alaaji Malick Sëriñ Tuubaa ci Ahmad Tidiane def leen daal leen di ful bañ doon di junte ñu teg leen ci balance jël seen i taalibe ñoom ñëpp jël ñeneen di weddi muy salafi yu ñëpp teg leen ci balance ñu teg Aboubacar Siddiq ci balance ngëmu Aboubacar Siddiq daal di daaneel ñoom seen ngëm ñoom ñëpp ñu nekk seen i sëriñ ñu ñàpp ñu daanu léegi leen baax leen tamit ku mel noonu doon toog mu jàkkaarloo ne maa lay a ragal yàlla fuuf pour wane yéen di bi ragal la fa mooy da mooy daj dëpp gi kon soo fekkee ne sant yàlla ni loolu ak ragal yàlla la ci xéewal gum la defal nga war koo def saa bu see nga def ko sant ak ragal yàlla la kon yeneen sala moo ci jiitu ñëpp waaw lu tax yeneen bi def ko su ko defut ndaxte kon daa bokkut ca la ñu ñàkk wala rek nga ne seen sëriñ moo gën a ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa wala mu doon loo xam ne ragal yàlla yéen da ko da ko da ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo réere woon waaye loolu lu koy weddi mooy yéen de bu nga nangoon yéen moo gën a ragal yàlla si sëriñ noonu ngay waxamee ne moo gën a xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama su fekkoon da ngay sikki sàkka saa ne nit ki moom mën naa xam lu yonent bi xamul ci diine ji ndaxte yénn nit ñoom jàpp ne ñoom dañuy dem xool ci lafak mahfuz waaye su fekkoon ne sax foofu nga bëgg a jaar xamal ne ba nga nangoo ne yonent bi moom ba nga xamee ne moom moo gën a ragal yàlla saw sëriñ foofu si nga xamee ne kon moo ko ëpp xam-xam te la chaque ne mun ko mun la ngay xam ci diine moom la yàlla wax mu daan koy jottali kon mën koo ko gën a xam waa kon euh, ñaari mbir yi moo am imma kon yonent bi xéewal yooyu ko yàlla defaloon da ci amoon a gàttanlu daaw ko sante seen sëriñ ñu daal di koy rombo ci ci sa warte te dem na ab jullit du ko nangu imma moom yonent bi daa dafa amoon qusur ci xam-xam waliyaadu billah seen sëriñ xam lu mu xamut te la jàpp na ab julit du ko du ko nangu kon ñaari mbir yi moom ngeen am te ba ca gën a neex daawe xat kon la cay des ma ñetteel bi mooy ne lii kon bokkul ci lislaam ku ko def da nga ko def ci xër go xamne ne wessu lan la digal mun na laa wutali ngànt ah ne waa de xam naa ne ndeysaan xër rek yenn saa yi nak yu sëñ bi moom li moom bokkut ci l'islam yàlla ko yàlla jegal yërëm ko waxe don don jaam yàlla go xam ne nit ñi def ko kon ñettel bi da fay leer ci ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bokku lon ci yonam te don taxa def nan khairul hadi ñoni yi yi gën ci njub yi yoni gën ci yoni mooy yoonu yenent bi sallallahu alayhi wa mu wan leen ne mbir yi gën a bon mooy li wuteeg hadiyu nabi mooy muhdathatul umur moo tax muy taxaw naan la gën a yées nag ci mbir yi mooy mbir yi ñu sos mooy yénte lam noon def moom di ko jaamoo yàlla sunu borom te gën ñu ragal yàlla fuuf gën ñu koo xam fuuf yem fa soo ñëwee yokku ca xam nga ne wàcc nga li xam ne mooy yoonam kon fekkoon ne lislaam da caa am saa yi bu ñëwee la xiiwal li la yàlla defal saa bu dellu see nga cay sant yàlla sunu borom su fekkoon ne loolu daa yoon boo xam ne lu yoon la lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ciy jiitu saxaaba yi ñoo ñu ciy jiitu waaye yonent bi jàngal leen ko ba fa yonent bi jógee mun nga wat léegi ne yonent bi amuloon temps wala nangam rek loo xam ne eh, ma anzalallahu min sultaan waaye sax ana sahabatul kiram ana Aboubacar ana ana Uthman ana Ali ci seen bëggub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku wax seen ginnaaw saxaaba yi damaa bëgg yonent bi mën nañoo taxaw ñun di la mën nit mën naa taxaw weddi la te la muy weddi mën na ko teg ci dara ndax prouvé woo ñëpp mën nañoo bind seen i bind ñëpp mën nañoo tagg ñëpp mën nañoo damaa bëgg diw ñëpp mën nañoo jox seen titre yu leen neex loolu yàgg la concerné yàgg ña la gëm ku la weddi tamit weddi wu la lu koy génn islam wala weddi wu la ko nit waxee na wala ko weddi waaye saxaaba ci kanam dañoo am preuve ne dañoo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañoo taxawoon daal di nekk bouclier mooy su dara du jaar du du jege yonent bi lu day rey ba pare ànd ak moom di xeex yonent bi gërëm leen taxaw daan ne sax moom si àdduna bi yëpp nag balaa mooy saatu ne su fekkoon ne am na kenn ku muy jël xaliil nga xam ne mooy la mooy mbëggeel goo xam ne dara du dara du ca moom fekkoon ne kenn ku koy jël ci àdduna bi abu Aboubacar lay doon kon jeex na loolu googu moom moom foo bëgg yéen fa la yem waaye moom yàlla seen tax yàlla du ko def ko xalif moo tax boobu mënut a jaxasoog leneen li wax fi mooy su fekkoon ni kon loolu xéewal yooyu yàlla defal yeneen bi ñoom ñu bokk ca loolu ak jaamu yàlla ak kiiw la kon ñoom dinañ ko def. ay ñàkk doon gu mu dàq doonu ko yiwu moo tax defuñu ko ku ko def wàcc nga yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne ñetteel bi kon amut lay nekkite yoo ñetteel bi sax moom eh, dafay gën a firndeel ne loolu lislaam kon ñeenteel bi jarut ñuy wax soo ci bëggee boole ñeneen nag ne leen ñëw leen santale ma yàlla daal di cay boole bis bu ñëw ngeen def ko su boobaa kon dangay jële mooy eh, ñaareel ba na mu nekkew safaan daal di koy boole ñetteel ba mu nekkew safaan mu doon mu mu doon ñeenteel bi mooy ñeenteel bi kon ñaari safaan la mooy safaanu saay bu ñëwee nga koy def boole ca ak safaan ñu leen daa di may santale yàlla ci mbir mi kon su boobaa ñu xam ne kon aslu màggal ki aslu ki cosaan li moom moo wuteeg sharia mu neex leen mu naqar leen aslu màggal gi su fekkee ne kon sëñ bi daa yemoon ci moom kese ne man damay sante yàlla sunu borom rey samay xar ci lay yem ci lay yem fekkee loolu kese la def ko mu jeex wala yenn yàlla xiiraan mu daa sant yàlla sunu borom noonu su boo ne ko ah ko def jiw la waaye su fekkee ne nañ ko waxee noonu la ko defee ñëw leen santale ma saa bu ñëwee ñu def ko di de sawar saa bu ñëwee ñu def ko booba wàcc nañ sariya di dem seen yoon lool. mu delloo ko sa gën a wàcc charette su fekkee ne lañ koy askanale wér na ci ne da ca daan teg nag naan leen ko am ñaari xar tamit da nga rey benn denc ba ca des waaye koo xam ne benn xar nga yor na ko ba ba tabaski ñëw su fekkee ne loolu wér na ci moom loolu bulu maat baaduha fawqa baad day ak lëndëm ñëwaat delloo ko ci lëndëm ga su Sénégal yëpp d'accordoon di wax ne loolu ak yiw la mënut a yiw mukk su àdduna bi yëpp taxawoon di bëgg a wax ne loolu yiw la dina am ñu yàlla tàggat donte ñett lañuy doon ñu ne lii du yiw ndaxte umma yonent bi nag ñoom duñu day duñu dajaloo mukk ci li nga xam ne moom mooy moom mooy balaal duñu dajaloo mukk ci li nga xam ne mooy réer am nañu koy dolli ni sax ñu doon tàmbale naan tabaskiwaat mooy leen bu leen waxaat tabaskiwaat ndax bëggut a ci li nga xam ne moom mooy mooy bida waaye tàbbi na ci fu mu yëgut su fekkee ne nii xolifam bi waxee nii noonu la dem ak ci li ngeen dëppoo yéen donte mu ngeen a dëppoo ci ak kon lii mooy li nga xam ne moom mooy premier premier point ci première point bi mooy cosaanu màggal soo ko tegee ci libiyeeru alquran ak sunna da ngay gis ne dafa génn ñàkk wi da gis ne dafa wuteeg ca la nekkoon jullit ña lañu nekkoon dafa wuteeg ñoom lañuy def te jullit yooy leen yàlla subhaanahu wa wax ne képp ku leen topp ma bil mafhum yaay dem àjjana bil mantuq ma ne képp ku leen wuteeg ñoom fa ngay dem mooy safara ci aaya bi waxee ne wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana alhuda wa yattabi gayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla fa ngay jëm wa nuslihi jahannam leen ci almusal wa saat masira jullit ñi lañu nekkoon mooy xamuñu woon xéewal ñëw ñuy dajaloo di ca def yi feet saay bu dellu si di santalante seeni xéewal xamuñu ko woon encore plus xamuñu woon màggal ku ñëw daal di wàcc ñoom yoon ba ñu nekk nekk ci beneen yoon xamal na yoon ba jël nekkoon yoonu àjjana waaye beneen yoon direct nga jël bu jëm safara yàlla jàll son du musal lii mooy li wér moo xam nangu nañ ko moo xam nanguñu ko wax leen ko léegi tey xam ko moo gën foofu kenn dem ba yomal qiyaam di xulli bët naam la ngeen fa fekk fa poussière kese mooy bis ba nga xam ne bët yi dañ koy xulli ñëpp ni xulliku def tiit ndax fekk fa loo xam ne da def te yàlla digaloo ko ñu wax leen ko léegi nii ngeen xam ko mu dugg seen bopp moo gën jën foofu ngeen delluwaat ngeen toog a daal di euh, daal xalaat yàlla ñu topp la mooy tabe sa man ab ilayi mooy lan mooy topp yoonu saxaaba wa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw yàlla ñun suñu bëggee njub ni ñuy def mooy gëm leen ne ñoom lañu gëmee woon rek ñi leen jiitu saxaaba yi nii bi ngeen ñu gëmee ñoom seen gëm bokk joon maggal loolu mooy am amul lii may wax nii amul kenn ku ci werante ni saxaabe ñu màggal xamuñu ko sax daawuñu defuñu lu ndoog màggal kon nag su fekkee bëgg nañoo nekk ci njub nañu gëm ñoom nañu nañu nañu gëme képp koo xam ne bëgg nañ ko ne sonk nañ ko nangam gis nañu ay waxam wuteeg lii ñu wutal koy génn waay waaye bu nga def nag yoon moom. wutal ko ay génn waaye ne wutal ko ne ah la àlla eh, am lu ko lu mu jotul woon ñi baax ñu ni saan noonu la ñu faral def ah, dafa lu mu jotul woon dafa am loo xam ne xamu ko woon dañoo xet dañoo xi dañoo bëggoon a jàngal nit ñi rek am benn yoon bu leen jaar dañoo xamoon dañoo wutal ngénd waaye bu la neex waaye nag lii moom bu ko boole ci charia ndax ko ci li nga xam ne moom mooy eh, moom mooy charia su ñëwee li xam ne mooy petit petit bee bi mooy deuxième poñ première eh, poñ bi Euh, mooy li aju ci mooy anam gi ñuy defee màggal gi moom fu mu jóge kon nag boobu dañuy bàyyi ba ba suba euh, wala waaw suba xam naa ci suba gi rek daal di koy eggale doogu ñëw ci deuxième point bi ndaxte point la woon ñu taxaw ci mooy fu mu jóge ak contexte historique bi ak màggal gii ni koy anam gi nga defee ñëpp xam nañu fu mu jógee ci euh, ci Fallou Euh, mborom nindi euh, ak tamit contexte bi amoon ci <laughs> contexte euh, xuloo ak xeex nga xam ne mu doon ki nga xam ne moom mooy jarbaatam ba di Gaynde ma loolu ama am solo ni ki comprendre màggal gii nag ni ñu koy defee ni dem Tuubaa gi moom fu mu jógee ak àttee lislaam nag ci dem gale ak suura googu ci yokk moom loolu foog nit ñu daal ci taxaw indi ci eh, ay leeral ak sax rôle bi nga xam ne Senghor joué na ko ci ci ci ci eh, magal gi mën nañu wax Senghor mooy ki nga xam ne moo fi représenté woon colonisation ba colonisation naa di tuuti rek seen i xaw a sori eh, dellu seen dëgg tuuti donte ñu ngi fi desoon ala kulli xel kon mën nañoo yemale fii tey waxtaan bi suba ñu continuer kon wala boog petit beewu premier point bi avant ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy julli ci julli ci géej gi barakallahu fikum